di ñaan yàlla fekkee ren di ñaan yàlla fekkee ko déwén macha allah ñu ngi nuyu ñëpp nag di jaar ñëpp ah di jiital ci nuyo bi kilifa diine yi macha allah di sàkku su ñoom ñaan bu ñu fa jógee dugg ci hôpitaux yi di ñaanal maladie suñu borom yëkkati leen kenn bañ a tëdd bu ñu fa jógee dugg ci maison d'arrêt yi macha allah surtout camp pénal fi nga xam ne sunu naataangu jigéen ñi sunu nawle jigéen yi nga xam ne foofa jombul kenn ña fa ne sunu borom may leen wér kàttanal leen dimbali leen ba bañ génn fa ñu nekk te kenn bañ a dellu comme ni ñu ko waxee nag tey ñu ngi fii suñu émission 8 mars nga xam ne baaxoo nañ di ko def saa su ne ah di ñaanal borom kër gi suñu frère El Hadj yàlla may ko kàttan ak wér ba saa su ne ñu koy defee nii ñu koy defee tey nag plateau spécial bi dafa spécial comme ni koy waxee macha allah ndax dama ci am gan yu spécial ah saa su nekk nag ma ciy feggoog sama rak Ola Titi ñëpp xam ko muy sama rak sës ci man lool saa su ne ñuy seeg feggoo plateau bi di ci waxtaan waxtaan bu neex machallah ah xamna dafa xawa tardé mais mu ngi ci yoon bi di ñew ah buñu jallé ci lool nak sama invité yu ñaawul yi comme ni ma leen ko waxé sa su nek invité de marque la fi indi ay jigéen jambar Lafi fi indi ay jigéen yi faq teud la fi indi ay jigéen démb demb allah sa su nek ñom la fi indi ba taxna na ma ngi feeg bu ci sama ndeyjoor Adja Diop la présidente du mouvement Siggi jotna na allah sunu yaay joju nga xamné ah bam jappé ba tay bayiwul feggoog ba tey tamit euh, Abi Thiam mi nga xam ne macha allah ku ne xam na ko ci euh, politique ku ne xam na ko ci développement euh, muy jàppale le président lay Dièye comme ni ma ko waxee sama rakk olaatiti ñëw na macha allah dañ koy alamaan nag moom dafa xaw a tardé mais comme ni ma koy waxee rek saa su ne moom laa ciy feggool bu ma jógee foofu ñëw sama càmmoñ maa ngi feggoog Fadja man yaa sëy daal laa koy woowee ndax yaa sëy la yaa sëy kër gi. macha allah di kontaan tamit ci feggoo gi ma ko fegoo moom tay ñu war a doxal plateau bi invité yi ba tey tamit invité de ay Aïda Fall jarabi ku ne xam na jarabi couture Aïda Fall ci njàmbaarte macha allah moom it tey suñu gan la ñu dalal ko fas yéene waxtaan ak moom moom it ci njàmbaarte jigéen am ay ndaanaan nag ndaanaan yoo xam ne euh, macha allah kenn du leen laajte biir Thiès ndax boo nee Doudou Wagué euh, ci ndaanaan la jeexal na ay wax mu ànd ak macha allah orchestre am ñi nga xam ne ñoom lay àndal saa su ne démb ba tey dara ñaawul ñu invité leen di leen jaajëfal nag ñoom ñu bàyyi lépp lu ñu doon def tey ñu wuy si ñu. ah ñu am suñu lingeer nag tamit lingeer bi surprise la lingeer Yacine buubu laa ko tuddee tey wala ma tuddee ko lingeer Fatma macha allah nu ñu ko woowee baax na mais lingeer la démb lañ delloo si tey moom it mu ci plateau bi kon daal plateau bi tey dina ala dawme macha allah dina neex. olaa titi sama rakk ji duma la may dara dangaa tardé waaye nag dama lay bàyyi nga nuyoo. dama la waroon a alamaan sax njëkkee nuyoo bi ci fàjja waaye nag naa naa la baal ndax sama rakk nga <laughs> macha allah ma bàyyi la nga nuyu askan bi. ndeysaan loolu dëgg la di jéggalu rek di tuub euh, circulation bi rek moo ma xaw a yàggal mm-hmm. mais xol bi xalaat bi yépp a ngi fi woon euh, di leen sant nag di leen gërëm di kontaan bu baax a baax si plateau 8 mars bi vraiment nekk plateau boo xamante ne chaque année rek euh, dañ koy dañ koy amal fii si Thiès TV nga koy jiitee ñu ñaan yàlla rek yàlla na nga ko yàgg jiite si bàkku yonent bi waaye di nuyu tamit personnel u Thiès TV yëpp ndax euh, nuyu leen sargal leen euh, daf ma war daf ma war rawatina nag jigéen ñi nga xamante ne rek ñu ngi biir Thiès TV ñoom tamit ñu ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax ci 8 mars bi waye tamit di ñuy fàjja di ko kontaane bu baax baax momit nek mm-hmm. nekk ci biir kër gi mm-hmm. nek jigéen jo xamantene vraiment mm-hmm. wane na ay empreinte am ci si biir Thiès TV ñoo ngi koy jaajëfal bu baax diko ko vraiment ni mu ñëw bokk ñun ak plateau bi eh, da nga yaat dal di yaatalé motax néna nee naa plateau bi rek ku nek rek xajna ci ku nek rek dina ci gis bopam waye tamit di ñuy suñu invité de marque yi nga xamantene ñomit sa war bañu nek rek ay jàmbaar lañu di wane seen bop dañ len di jaajëfal bu baax baax di len kontaane naan 8 mars bi seen 8 mars la donc rek sargal len jox delloo leen jukkal euh, seen taxawaay ak jàmbaat bi ngeen xamante ne rek fa ngeen nekk yéen a ngi koy wane rek moo war moom moo tax tey Kiné Sèye daan leen invité si plateau bu riche bi nga xamante ne chaque année rek moom dina ko amal li nga xamante ne rek mooy ànd seeg waa Thiès TV pour jagleel jigéen ñi sargal leen màggal leen waaye tamit ñu gën a góorgóorlu rek si waar ba ñu nekk kon ki ne sëy maa ngi leen koy wax di ko wax na képp koo xamante ne rek mu ngi toog jàkkaarloo bi ñu fii si la première chaîne macha allah sama rakk ji lii mooy tax may bëgg saa su ne may feggoog yow ndax danga may mottali kontaane naa la macha allah xanaa ma bàyyi Fadjala suñu sëydaa macha allah moom it mu nuyu mu nuyoo askan bi ndax namoon nañ ko moom it bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar waaye di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada di sargal bépp jigéen rek comme ki ne ni nga ko waxee mm-hmm. waaye sargal boobu dañ ci jiital suñu yaay yi mm-hmm. ñi nga xam ni ñoo fi nekk suñu borom guddal seen fan mm-hmm. waaye ñi jiitu ji yàlla yeesal seen yërmande ku mel ni sama waajur jiitu ji na maa ngi ñaan képp ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk ak ba ci ki mujjee faatu tey yàlla na yàlla yeesal seen yërmande waaye duma fàtte benn yoon borom kër gi DG di ko ñaanal ndax foo ñaanale jigéen war faa ñaanale góor ndax ñoo ñuy mottali du ñu fàtte benn yoon wala euh, titi mi nga xam ni moom macha allah xaritu ñëpp la mhm. dañ naan bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg di def liggéey bu am solo waaye kin ne yow dañu lay beral nuyoo comme ni ko Ola waxee yaatu nga yaatale nga macha allah yàlla na taxawaay bi yàgg te sax Kees TV loolu la ñëpp benn bopp la même bu gisee amul dañuy déggante mhm. yàlla na yàlla gën a dëgëral DG e te yokk wërsëgam ak mën-mënam di sargal bu baax suñu gan ñi nga ñu wisi la yombul waaye dagg nañ seen i yitte ñëw askan wi ñor leen ak euh, jigéen gëdd bi suñu borom def ci moom nee naa leen jigéen du benn bis rek la am at mi yëpp jigéen a ko moom waaye nag comme que dañ ñu jox ko kenn du ko dañ koy nangu di nuyu ñi nga xamante ne lañ plateau bi ak ñi nga xam ni waaje ak suñu càmmiñ yi nga xam ni ñoom la ñu jàkkaar lool bàyyiwuñu kenn di ñaan yàlla na yàlla mottali ci barke yonent bi ki ne kàddu gaa ngi noonu macha allah kàddu yi rafet na yaa sëy daal lii moo tax ma lay taamu ndax euh, macha allah daal macha allah yal na la yàlla defal jàmm xanaa ñu bàyyi suñu mag suñu yaay Adja Marème la président euh, du mouvement Siggi jot na macha allah moom it mu nuyoo askan bi bi daaw uh-huh. ñu ngi organiser ay hôtesse ànd ak uh-huh. ay moroom di célébrer 8 mars uh-huh. kon fa mu boole nañ ko ci jigéen ñi célébrer 8 mars kay ak képp ku mu fa fekk ak ko fa fekk ah may kontaan ci madame Camara bu baax parce que yàlla moo ñu boole ci terrain politique yi bokk bëgg-bëgg Thiès TV du suñu télé kon bu ñu ñëwee ñu invité dañu ñëw suñu kër tey may nuyu sama jàmm ñi dud wage diggante bayaal ak tegloo may leen nuyu leen sarka bu baax bis jigéen ñëpp waaw jaajëf Adja Marème sunu yaay kàddu yi rafet na euh, sunu xol tooy na mais sunu rakk jooju dañ koy ñaanal sunu doom sunu rakk dañ koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana fii taw si ndax looloo neex sunu borom comme heure bii daaw mu ngi fi woon ànd ak ñun di ko feete wax dëgg yàlla tey mu mu mu dëddu dañ koy ñaanal yàlla may la nag xolu muñ macha allah ndaxte nee naa la Adja Marème yow ñun lii la ñuy bëgg ndax euh, gis nañ ñi nga di mel man boo gisee sax ma gën a taxaw ci invitation bi damaa bëgg nga génn damaa bëgg nga soulager wu ndax dañ dañoo wéetaloon dellu dellu si mu dellu si daf daf ñuy neex moo tax euh, wax dëgg yàlla invitation bi bu ma ko invité mu accepté ko dama cee kontaan loolu macha allah ci invité euh, invité invité yi ma gën a kontaan boobu ci la bokk euh, ba tey tamit ñu bàyyi suñu sœur la Lyon gaynde Ablaye Dieye moom it muy Aïda Fall Jarabi ku ko xam ku dégg Aïda Fall Jarabi dégg Jarabi Couture xam ne jàmbaar la ndax turam egg na fu ne jëfam egg na fu ne moom ñu bàyyi ko mu nuyu téléspectateur yi. waaw salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum waa Sénégal euh, maa ngi leen di nuyu euh, vraiment di kontante ci invitation bi di fi fekk sama yaay yi sama sœur yi jomma ñaaw yi nga xamante ne yaakaar nañ ne ko liñ naan bu ñu ñemee ñoo ñu te maam on aussi ma leen di souhaiter une bonne fête de la femme ndax ay jigéenu jàmbaar ngeen kenn du yéen macha allah ci loolu aussi damay nuyu sama yaay. nga xamante ne mooy sama référence mooy sama lépp jàppale ma dooleel ma gunge ma ma koy ñaanal njaay yàlla na gudd fan fekk ay njëriñu njabootam ak yépp yaay ci barke Seydina Mouhamed du nuyu waa kër gi du nuyu ñëpp du nuyu olaatati mi nga xamante ne ku xam modd da cee bokk lool macha allah ñu nag jaay jaajëfal di jaajëfal suñu sœur Kiné kenn du yow tamit ndax euh, yaatal nga defar nga kon dañuy kontaan boo ñu woowee tey fii ñu wax ci wàllu jigéen Euh, kàddu yi rafet na ma de cœur bég naa ci yow macha allah invité bi ñu la invité wax dëgg yàlla ah nga accepté dañoo am mbégte mu rëy ndax nag euh, yow doo ko ndaw kon bu ñu la déplacé nga ñëw wuy suñu dañ ciy am mbégte euh, ba tey tamit ñu bàyyi suñu sœur muy Abi Thiam macha allah ah, moom it mu nuyoo askan bi. asalaamualeykum asalaamualeykum wa julli ci yonent bi sang-sang yi ñu ñuy ñëpp ñu ñuy Thiès TV ñu ngi nuyu Kiné Seye sama seex sama xarit sama confidente macha allah ba ñuy xale ba tey ñooy ànd dara ñaawul may nuyu Adja Maram Diop présidente mouvement bi si jot na di nuyu Ola maa ngi nuyu Aïda Fall Diarra bi maa ngi nuyu itam Fadja di nuyu nag plateau bi yëpp di wax ni macha allah toogaay bi rafet na am na solo ñu ngi ñaan yàlla fekke ko déwén incha allah kenn bañ a manqué. incha allah ñu ngi nuyu itam El Hadj Wade di nuyu ñëpp daal kontaan nañ trop nag ci invitation bi. merci Abi kàddu yi rafet na macha allah euh, yow sama seex nga euh, ba pare bi nga ko waxee rek may may sa confidente ndax saa su ne da ngay may woo di ma di wax ak man wax dëgg yàlla ma ci am mbégte lool euh, di nuyu ba tey tamit ah sunu ndaanaan yi fi nekk comme ni ma ko waxee. duudu wage kenn du ko laajte biir Thiès ñëpp xam nañ ko kon duudu dañ lay bàyyi nga nuyoo nuyoo géwél nuyoo cosaan loolu lañ bëgg nga nuyoo ko tey macha allah. allo allo. ñoo ngi lay déglu bàyyi laa kàddu gi. waaw jërëjëf Adja Kiné <laughs> sant yàlla rek. di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur. di ñaan yàlla suñu plateau bi yàlla bu mu doon yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mars rek comme ni ko yaa Seyda waxe léegi 8 mars dañ ni 8 mars pour jigéen ñi la ma ne comme ni mu ko waxee rek jigéen at mi yëpp la ndax jigéen kenn war ko sàkkal bés ndax jigéen li mu taxawee ci société ak li mu représenté société ëpp na benn bés kon ñi ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax a baax di ko ndokkeel sa collègue boobu nga toogal di ko ñaanal yàlla di nuy Adja Marème Diop nga xam ni wax dëgg yàlla suñu sœur la wax macha allah mu yàgg taxaw taxawaay bu rafet ci siggi jot na macha allah jiga di ñu benn yoon di ko ñaanal yàlla doomam jooju fi jóge yàlla na ko yàlla teeru ci àjjanal firdawsi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu toogale ci plateau bi di nuyu itam sama groupe yi nga xam ne ñoom laa àndal macha allah euh, ci bés bi kon rek du ñu def macha allah waa du du kàddu yi rafet na mhm. comme nee naa la dañoo am gan tey waaw tey dañoo bëgg a delloo si démb dëgg la ndax cosaan dafa am solo effectivement moo tax ba nga xam ne dañoo am lingeer tey ni ma koy waxee ñi naan lingeer yaasin boobu mhm. wala ñu ne lingeer Fatma dëgg la macha allah ñu bëgg nga dugal ko dëgg la mu ñëw moom it dëgg la voilà yaasin buubu sama lingeer yow jaaraama yow mi yoole sa deret maa jor sala yow jaarama yow biram yaayu biram gàcce ngala jaxeel gàcce nga la xeer gàcce ngalaama yow mi yoole sa deret maa jor saala jigéen yàgg naa am ndam ci réew mi loolu cosaan la xoolal yaasin ni mu terale Kajoor loolu lu yàgg la linger lingeer magu démb ndax yaakar na ni bo ne lingeer Adja Marème da nga nan nguka da nga nan libidor ah kon sunu linger bi tay ni mu ñewé delloo na dembu fàttali ñu dembu ah jigéenu démb macha allah ci ngor ci jom ci fulla ci fayda du Wagué wax na ko léegi yoole sa deret xam nga ni ngor ta lolu kon gàcce ngalaama sunu mami sunu yaayi yi macha allah dañuy roy ci ñom rek kontaan nañ bu baaxa baax linger bege nañ la beg nañ ci yow ni nga dugg see neexna na ma sœur ah dañuy daal dugg suñu thème ndax na wax deug yalla thème bi tay njambaata jigen lañu wax njambaata jigen buñ ko waxee nak day daal di yaatu ci fànn yépp ndax jigen njambaatem buñ koy wax fi ba suba duñu pare xana ñu jukki ci li nga xam rek mo fi ne muy njambaata jigen ci liggéeyu kayam ndax gis nañ ni jigen yi nga xam dañoo yor seen métier di liggéey dañoo woné seen njambaata lool ndax dañuy bolé liggéeyu kër ga liggéey bi nga xam ne ci la ñuy tedd war see teral seen njaboot lépp la boole te duñ ne un duñ ne an macha allah lépp la ñuy doxal ba mu jaar yoon buñ jógee ci loolu ñu jàll ci njàmbaate jigéen ci géew politique bi nga xam ne politique macha allah dafa xew femme développement yépp dañuy yëngu ci politique am ci njàmbaate nag am ci taxawaay bu rëy loolu yaakaar naa bu buñ ci duggee suñu yaay Adja Marème mi nga xam ne yaakaar naa ni ça fait des années mu jiite lu ñu naan mouvement si gi jot na te booba ba tey dara ñaawul lépp a ngi rafet dinañu ci baaxee bu baax a baax ñu gën cee fësal njàmbaate jigéen ci wàllu woowu kon laa sama rakk ji ma bàyyi laa kàddu gi rek

8 mars euh, Adja Kiné mhm. Euh, li ko waral deug dëgg dëgg euh, ba tey ñu am ko bokku na ci li nga xamantene rek ay ouvriers yu jigen mm-hmm. ñu nekkoon fofu sa Amérique nekkoon ay immigrante mm-hmm. donc ñu nekkoon ay italien am ño xamantene ay juifs lañu jóge ci Europe de l'Est ñëwoon di daan sen doole mm-hmm. mais nañu nekkee woon foofu ndeexul ndax ñu leen daan bunduxataal lu ñu leen fay pour ñu lekk sax problème la ñu dem ba usine bobu nga xamantene day defal ay yene ñu boole ci ay ñaw mu am na grève ñoom ñu grève sen biir dem ba usine ba laq nak ba mu lakkee nak ñi nga xamantene ño ño lañ doon jëriño tëj buntu bi sen kaw ñu am cent quarante ouvriers yoo xamante ne dee nañ fa jigéen nag booba tey bu ñuy célébrer li nga xamante ne mooy 8 mars seen xel day dem si incendie boobu ndax waral na li waral ñu am 8 mars bi waaye ba tey taxul ñu jox leen ko ndax jigéen ñi amuñu woon kaddu vraiment di di wax seen kaddu nu mu leen waree amuñu woon égalité ñoom ak góor ji ba moo taxal nag mu am benn l'internat socialiste boo xamante ne rek mi ngi foofu tudd Clarence Jenkins daal di nag taxawal di xeex di xeex di xeex ba tey ni, ñi am tuuti li nga xamante ne mooy doole foofu sa Amérique ndax foofu lañ njëkk a validé li nga xamante ne rek mooy droit de la femme mu daal di koy amal le 19 le 19 mars 2000 1921 euh, ci lañ njëkk a def li nga xamante rek mooy 8 mars moom moom ci le 19 lañ ko njëkk a def mm-hmm. ñu koy xeex di ko xeex di naan le 19 bi doyul dañoo bëgg sax ñu jox leen weer bi waaye ba tey mu mel ni rek euh, euh, gouvernement àdduna bu Europe ñu jox leen ko mm. parce que xam nañ ne jigéen bu xalee xasee am benn pouvoir rek ñoom góor ñi seen pouvoir dootul feeñati ndax jigéen dafa mel ni rek mooy àdduna mm. donc bu ñu leen joxee yenn pouvoir ñun dañuy dem ba ñoom ni ñu moom góor day daanu bu ko defee nag di xeex di xeex ba ñu ñu ko jigéen dañuy bëgg di jàng mhm. comme ñu góor ñi jàngee la góor ñi di fayeeku ne ko jigéen ñi di fayeeku waaye bokk na si ñu bàyyi leen seen xel ak seen xalaat ñu koy dawalee nu mu leen neexee kenn du leen utiliser bokk na si li nga xamante daal mooy mobiliser li nga xamante ne mooy jigéen ñi pour ñuy xeex li nga xamante ne mooy seen 8 mars mënuñu ko cee ñàkk bañ a wax parce que la plupart des gens xamuñu sax li tax ñuy mm-hmm. rek ndax bu ñu mm-hmm. mooy 8 mars bi euh, jigéen ñi di ko def euh, tey nag macha allah nga am invité yu ay yu am solo tarkal macha allah tey ñu bëgg a waxtaan ci jàmbaate jigéen mm-hmm. euh, jàmbaate jigéen léegi rek sunu chanteur national bi mi koy wax mi ngi naan jigéen du du du juróom-ñetti fan yi rek lañ leen war a jox dañ leen war a accouchement yi dañu war di sàggal jigéen ndax jigéen boo dee seet kiné jigéen dafa am solo lool trop trop trop waaw jigéen defe naa boo dee xool góor boo xamante ne mu ngi am lu muy ut sax boo xoolee ginnaawam jigéen rek nga fay gis boo xoolee société boo xamante ne dox na trop ba ñu naan société bi dafa dox boo xoolee ay ouvrier wala sax ñuy liggéey si biir société bi jigéen rek moo fay fees ndax jigéen nekk na loo xamante ne rek lu mu dugal loxoom wala fu mu nekk rek fees daf fay nekk waaye lu mu dugal loxoom rek yàlla da ciy def barke loolu yàllaa ñu ko mooñaale donc tey bu ñu dikkee di wax si li nga xamante ne mooy jàmbaarte jigéen Euh, donc ñu ngi wax suñu mënin mhm. ak lu ñu mën ak ñu ngi wax suñu doole mhm. parce que jigéen bu ñu la jàmbaar rek dooleem dikk na mhm. ndax jigéen fa mu nekk rek moo xam Aïssatou Diop jarab yi nekk une grande couturière tey ji boo demee si miliam ba mu nekk rek jàmbaar la fa ba tey góor ñi nga xamante ne séq naa ñoom langue bi rek da leen di wër la mu leen mënee mm-hmm. bëggoo ñu nangul ko ko waa ña ma bokkal langue boobu nangul ko boo xoolee tey sa invité bi nga xamante ne tarkalla macha allah mm-hmm. voilà mm-hmm. moom tamit milieu ba mu nekk dafa doon jàmbaar yëngatu fa mu nekk vraiment koo xamante ne ku ko xool rek xam ne kii am na luy dox ci moom muy jàmbaar boo xamante ne moom dafa sax ci biir xolam ba tey looloo tax mu nekk sa référence ba nga invité ko bu ñu xoolee soxna si toog la nga ko invité waaw voilà jàmbaarte moo tax nga invité ko Fadja moom desul gannaaw ndax fii mu nekk bi Thiès bi daf fi wane ndëgër laay wane fi jàmbaar ba tax tey jii tey nga toogloo ko ci plateau ndax xam nañ ne jàmbaar la kon nag mu naan ne rek ay jàmbaar ñoo fi daje mu mel ne bu ñuy wax jàmbaar ci jigéen rek tey Adja Kine Seye euh, du doy dafa mel ni rek tey heure bi dina dinañ ko passé ndax lañu war a wax na war a bari dina bari macha allah sama rakk ji li moo tax ma taamu la voilà euh, Fat Fadja yaa Seyda macha allah yow it jàmbaarte jigéen am nga ci paral macha allah ndax jàmbaar nga macha allah Adja ne comme ni ko Ola waxee rek moom macha allah damay rafetlu xalaatam mais nag loolu suñ borom moo ko moo ñaale ci jigéen. jigéen joo gis am na xalaat bu rafet bu muy doxee. moo tax toujours ñuy mën di accompagner góor ñi. gis nga kër bu ca fukki góor nekkoon. te benn jigéen nekku ca kër ga du dox. mais bu ci téeméeri góor nekkee benn jigéen nekk ca kër ga day dox. xam nga Ola mi ngi wax ci côté maanaam ñi nga xam ni ñoo doon xeex 8 mars. mais jigéen. lislaam moo ko njëkk a xeex muy bi suñu sang bi ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax avant lislaam di ñëw dañ daan def ku jur jigéen rek suul ku jur jigéen suul am ci koo xam ni suñ borom da koo nattoon mu am juróom-ñaari doom yu jigéen mais suul na juróom benn yi mais juróom-ñaareel bi moom la mujjee am ku ne xam na ni doom ju ndaw day taq waajuram xale bi dem ba fu waajur bu góor bi toog xale bu jigéen bi toog fa mais heure bu ñu toogee di waxtaan rek bu jógee dem Euh, ñu daal koy xaqataay saboote ko ne ko foo jëm rek sa doom ji jigéen ji ngay àndal bu tëddee du nelaw di xalaat ni ñu koy sabootee ak doom ji ni mu ko miinee ak moom ni muy wéttalee doom ji ak ni ko doom ji di wéttalee mu dem rek semaine yàlla dem ci àll ba di gas pax di gas pax di gas pax ba mu wóor ko ni pax mi xale bi bu ci duggee dinaa ko mën a suul ci xale bu am fukki at ak ñaar xam nga ne kooku xam na ràññee na bi mu ko nee suba ak jàmm dama lay yóbbu nga nuy ji sa ñoom bàjjan xale bi kontaan ndax papa ji miin na ko miin na papa ji mais xale bi xamul génn. la fekk mi ngi ànd ak papaam di génn génn boobu def fierté ci moom mais yaayam nelawul ci guddi gi. parce que xam na ni sama doom ji. waajuram wi da koo nar a sàkkali pexe. mu xëy solu sañseel ko ñu ànd di dox di dox di dox di dox ba mu jub pax mi xale bi di moytu mais pax mi daf koo def ay sàkket ak yooyu ba pax mi feeñul. mu ne ko jaaral ci sama côté ndeyjoor xale bi dafa jaar ci côté ndeyjooram rek sërëx muy suul. xale bay weq muy suul ba xale bi gisatu ko ay baay waxoo ma woon lii bi lislaam ñëwee ba mu toog di nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu def doomam jooju yonent bi da ko ni bu dul woon baatu seede yi nga tudd damay taqale tey sa bopp ak sa baat laata eggale ba di egg yonent yi ay xéewalam tuuru na muy ay rongooñam nga xam ni kon jigéen euh, buy sargal bu mu fàttee suñu sang ba sallallahu alayhi wa sallam ndax lu ñu am moom la bi mu ñëwee nag ci la njàmbaarte jigéen dëgg feeñ ndax ku ne xam na ni jigéen moo njëkk a tuub muy saydatuna Xadija waaye tey lu yonent bi am naa Xadija la waaye ku ne xam na ni jigéen la deretam njëkk a tuuru ci lislaam muy saydatuna Sumayya kooku nga xam ne dañ ko takk benn tànk bi gileem benn tànk bi giléem dàq ñaari giléem yi xoolal googu deegu doy waar mais boobu jigéen mooy ki nga xam ne bu xasee soobu soobu na saydatuna Mareem mii ku ne xam na ni tey boo tuddee président Ablaye Dieye ah am na lu mën ci moom de am na lum ko mënal mm-hmm. muy ay ñoom kinne sey ñii bu doon Ablaye rek mm-hmm. macha allah dina dem ndax ku yàlla tudd ne fii ngay dem fa ngay dem mais il faut jigéen nekk ci sa wet mm-hmm. yàlla moo ñu moo ñaale kon dañ koy nangu kon njàmbaar googu ñu suñu borom moo ñaaleel fu ñu toll nañ koy fësal waaye na ànd ak maax waaye na ànd ak dignité waaye na ànd ak personnalité parce que jigéen personnalité moo ko mën a yóbbu fu ne sa boroom kër ngay gis ba mu amagul soxna mu nekk ci lu ne waaye bu amee soxna ñu ne cey kii soxnaam moo ko génne ci li mu nekkoon ay waay diw yeex naa takk soxna wala nga gis borom kër boo xam ni waxul waxi soxna ñu ne bu ngeen ko takkalee soxna jikko ji mu yor dina soppeeku kon jigéen magasin la jigéen mooy école ummul madrasati jigéen mooy école ci àdduna jigéen mooy lépp kon suñu jàmbaar yi nga xam ne tey ñoom lañ invité ñu toog maanaam suñu càmmiñ yi toog ñoom ci seen faar lañ leen bindee moo tax ñoom mënuñoo dem sans ñun ñoom it mënuñoo dem sans ñoom parce que suñu maam Adama bi mu fi nekkee moom kese daanaka mën naa ni bi mu nekkee di dund moom kese yëgul ne doomu aadama bay dund la ci la suñu borom dindee ci faaroom wi bind ci suñu maam awa loolu moo tax ñu naan aadama ak awa kon sans ñun macha allah ñu baal ma ñoom du dem kon daal ki ne tey plateau bi defe naa ne dafa ala daw me te liñ ci war a mën a wax bari na dañuy jox suñu invité yi tamit ñoom ñu wax ci li ñuy liggéey su ko defee thème bi gën a mën a développé euh, macha allah ñu gën a mën a xuus ci waxtaan wi. macha allah yaa Seyda sa participation bi am na solo. am na solo lool ay dafaal jarabi boo ko déggee comme ni ñu koy waxee jarabi couture jarabi couture wër na àdduna mhm. génn na Sénégal mhm. wër na àdduna fépp wax dëgg yàlla euh, ñëpp xam la ci sa njàmbaarte ay da nga am ay secret nag tey ñu bëggoon nga waxtaan ceeg ñun ndax nag dañuy bëgg nga koy baaxee ndax xam nañ ne am na am nga ay secret ndax liggéey bi ngay liggéey euh, fulla di ci am romb nañ ko fayda gi nga ci am romb nañ ko ngor gi ci am romb nañ ko mais particulièrement gëm-gëm gi nga ci am ba yàlla eggale fii nga eggale tey ba àdduna yëpp di dégg ay defaal jarab yi te njàmbaarte macha allah. waaw soxna Kiné def naa ne loolu boo ma ci laajee damay kontaan. Euh, ndaxte damay dégg ci samay yaay. samay maam ngi naan euh, ñaari loxoy takk ñaari loxoy takk sër. te yaakaar naa ne su ma doon góor. jigéen ju koy wax boo doonoon góor doo def dara. ñu toll ci jamonoy jom jamonoy fulla ak fayda jamonoy réaliser dara jamonoy quelque chose de concret te yaakaar naa ne ci li nga nekk kenn du la ca fekk di la ca puus yow yaa ciy jàppale sa bopp te fulla ak fayda kenn du ko jox nit mu dem ba nga xamante ne dañoo xam ne ay jigéen lañu te euh, niñ naan ku mënul ñaan da ngay liggéey mhm. mënuñoo ñaan ñuy liggéey te loolu la ñu taataan loolu la ñu nàmpal ndax bi may dal baa yaakaar naa ne sama yaay ak sama papa ne ma jàppal ci ñaari machine yi góorgóorlu day baax bu bëgg léegi ñuy sant yàlla ba nem ci ay ay dizaine de machine kon sant yàlla la ndax loolu tamit aussi dañoo toog def ci suñu fulla ak suñu fayda boo ak na di gëstu ndax liggéey boo nekk rek gëstu ndax donte ko nag dañ koo jàng xëyuñu xëy rek nekk ci

liggéey boo gis rek da koy laaj ak technologie bi ni mu avancé ñëpp xam nañ ne mode bi avancé na lool waaw ñu ngi ciy gis lu nekk donc loolu moo waral ñu ciy def lu mel noonu macha allah kàddu yi rafet na mhm. euh, Aïda ñu gis ne yéen yow ko surtout yow mhm. sa njàmbaarte romb na ci comme ni ma ko waxee sànq génn na Sénégal mhm. dañ leen gis ngeen takk ay bagage ànd ak góor ñi fu góor ñi ne ngeen nefa ci foire yi ci fu nekk yooyu di ngeen ci dund ay jafe-jafe wax dëgg yàlla mais saa su nekk rek ñu leen di fekk ngeen am ci njàmbaarte gu rëy découragé wu leen benn yoon. dëgg la mm-hmm. euh, li may wax rek damay dolli di remercier son excellence monsieur le monsieur le président Macky Sall. Mm-hmm. Euh, di dellu comme la ma ba mu ñëwee fii la ma ko wax rek. Mm-hmm. nee naa ko ab dëkk danga fay teg koo xamante ne dina jege askan bi. mën a xam li askan bi bëgg. ak la muy laaj ñun euh, suñu soxlawee. ci suñuy autorité la ñuy dem ndax yaakaar na lépp mënal ñu ko suñu bopp ndax ku xam ne génn Sénégal méttee nga boole ci bëgg jaay ji na mu mettee yaakaar naa ne bu ñu la bàyyeeg lépp day métti ndax yaakaar naa ne kenn ku nekk boo génnul foire sax xam nga ni foire méttee ndax ñii di foire ci biir dëkk bi rek xam nañ li ñu jënd stand à cent mille francs cent cinquante mille cinquante mille francs stand boo ko jëndee poqus bu ndaw la kon boo génnee fii dëkk bi rek xam nañ ni stand dem nga def nga ci xaas bu weex tàll ca lool nag duma ci taay di wax Adja Maram dama lay delloo sa cër delloo sa wàccuwaay en tant que jigéen en tant que yaay ci bis gi jot na euh, dama damay wax saa su ne duma ci taay bu ñu ñemee dañoo am ku ñu dee suñuy gërëmee suñu ñaari waajur ah man dama ciy teg Abdoulaye Dieye ndax seetaanuñu benn yoon ja euh, aajowul ñu koy gis pour mu ñuy defal moom na yëg ca la nga nekk na yëg ca yaa ngi cay bëgg mm-hmm. yaa ngi koy def mu jàpp cax mm-hmm. loolu laa wax son excellence dama ne ko mm-hmm. da ñi ngi fiy teg dañ laa war a mat bët mat lab loxo mat lab tànk lu ko waral mooy fu mu nekkul mu mu doxal ko fa fu mu nekkul mu waxal ko fa fu mu nekk mu jëfal ko fa ah te vraiment Abdoulaye Dieye dama koy gërëm di ko sant duma ko tàyyi parce que ku xam artisan xam euh, comment euh, mode culturel mhm. xam na chaque jour dañuy nekk ci événement mhm. chaque jour dañuy nekk ci ay yite mhm. te mooy li ma wax rek su ñu ci jàppalewul rek du dem te saa su ne da ciy jàpp ma ci remercier aussi jatara ndax euh, ci biir kooru daaw rek ñu ñaan yàlla fekkee yeneen i koor dañoo doon génne fii di représenter Sénégal ñu ñu doon waxtaan ci euh, nouvelle technologie bi ak euh, numérique bi. Mhm. boobu mu fekkoon ku mu nekk ministre di numérique. Mhm. ba mu ko yëgee ñeenti billet d'avion yi nga xamante ne ñoom lañ doon demee yépp moo ko jënd. Mhm. kon dañuy soxla ñu mel noonu ci biir réew. kon daal loolu dafa bokk ci suñu liggéey. ñi nga xam ne ñoo ñuy ñemeel ba tax ñuy foncer di génn Sénégal. maanaam njàmbaarte jigéen. Euh, pour nga fësal ko ña la war a dimbali dañ laa war a may loxo merci beaucoup te macha allah bu ñu la déggee mhm. loolu nga fi wax ah ci loolu nag laay jaaree mhm. comme tudd nga fi président Ablaye Dieye mhm. te nee naa la plateau bi tey dafa dafa sigit plateau sigi la ndax daanaka ñu fi nekk ñëpp ah, ay nit président Ablaye Dieye lañ ay jàmbaaram lañu vraiment dañuy am mbégte ci loolu ak kontante euh, ba ci loolu laay jaaree euh, Abi Thiam mi xam naa Adja Marème dañ ci sànni kàddoom président Ablaye Dieye jàmbaar jooju suñu waa jooju nga xam ne olof Njaay nee na sama waa ji ndama nga ca gàccee nga ca mais ñun suñu waa ji ndama ci ne euh, euh, mois de la femme mm-hmm. ku ne xam na ni weeru jigéen la du benn bis 8 mars dañ dañ koy firndeel mm-hmm. mais mois bi yëpp weeru jigéen la jigéen moom at mi yëpp àdduna jigéen mooy àdduna at bi yëpp mën nañ ci màggal jigéen mais dañoo tànn bisu le bi di ci sargal jigéen ñi ba tax na moom démb mu marqué ci empreinte am def ci lu rëy mm-hmm. vraiment euh, dem ci nitam yi jigéenam yi dafa door nag dafa war a eggale te day egg incha allah ñi mu jot a dem démb abi caam mi ci la bokk mm-hmm. dem seeti leen saafonteeg ñoom mm-hmm. bàyyi leen fa xaalis bu takku mm-hmm. pour mu dimbali leen ñu dimbali koo ko te vraiment jigéen euh, suñu jamono ñuy toll boo koy jàppale ci njàmbaarteem bëgg mu mu liggéey danga nga koy dooleel te moom loolu la def démb mm-hmm. dafa dem ci ci ci responsable am yi nga xamante ni démb organisé nañu mm-hmm. mu démarré ko fa ndax nag ndige la te dina ko def te da koo tàmbali démb démb tàmbali la mii ñëpp jot seen wàll mm-hmm. macha allah mu tàmbale ko ci abicam mii def acte bu rafet ak ñeneen ak ñeneen euh, loolu dañ koy dañ koy dañ koy félicité dañ ciy bég lool ndax nag nee naa la ni mu def démb bu ñu amoon fukk yu ko def wax dëgg yàlla suñu njàmbaate dina gën a fës ndax nag mën nañ nekk ay jàmbaar bëgg a fësal suñu njàmbaarte mais doole jën néew mais bu ñu amee ku mel ni moom mu ne ca wet ga def lu rëy li mu def démb ah, dañ koy magnifier dañ ciy kontaan dañ koy encouragé macha allah di ko ñaanal ndax xam nañ ne bu ko ñaanalee mu wér gudd fan bu soobee yàlla ñun ñëpp ku ne di jot sa wàll kon nag na ñëpp xaar ku ne di nga jot sa wàll ajaama dem waaw loolu xam naa am na loo ciy wax moom voilà jël micro bi mhm. Mhm. Euh, ku ko tey ci biir Thiès. li mhm. ma waxoon bëgg dem rek laay waxaat. Mhm. bi mu ñëwee fekk social bi di nelaw. Mhm. ci Thiès. DG Abdoulaye Dieye moo ko yee. da ko nu jógal fi kenn du fi nelaw. mu toll ni Thiès. nga tëdd di nelaw rek xaaral ma jóg ba mu jógee fu mu njëkk daf koo njëkk jigéen ñi. parce que boo ko waxee mun damaa bëgg sama yaay. Mhm. moo tax ma far ak jigéen ñi. Mhm. te yaayam tam ku neex a bëgg la. Mhm. li sama doom ji ay defaat jaraab bi wax rek jaraabu couture macha allah lan may ñëwal tey moom laa ron sol mais comme dañoo niroo tey ci plateau bi. pour sponsor yi. il faut ma ñëw nii jërëjëf. Ah, yaayam dafa yàgg daan dooleem. pour xam Adja Mbaye Ndiaye xam ko ci marché. Mm-hmm. doom bu mu jur marché nga màggee. Mm-hmm. kon Abdoulaye soo ko xee mu man loolu dama ko xam. Mm-hmm. bëgg Cees bëgg samay jigéen. loolu moo tax lu may def ci jigéen ñi laa koy njëkk. dafa ñëw ci Xadi Caam démb. Abi Caam Abi Caam démb. mu jóge fa mu jóge fa ñoom Aboka. jigéen ñi. mu jóge fa ñëw ci feex bi mu dëkk. ni bu ko kenn médiatisé. ñu bàyyal ko jabajaat. bi ma koy nangu démb boobu une heure ci guddi jot na. te joxuñu. financement. Mhm. dafa ni dem leen ngeen jël ndox mu sedd ngeen attaay comme da ngeen def 8 mars. Mhm. suba mhm. kon président Abdoulaye Dièye. dem na ci hôpital régional changé na xar kanamam. bilaay ndax dafa romb jigéen mu boot doom taxaw ca mbedd ma naaj ba tàng lool. muy ñëw waxtaan ak ñun nu may def dama fay tabax kaas. jëlee fa oto ya miire boo kili ko peinture ko ah. ku soxla da nga naan président Abdoulaye Gueye moo ko fa def ah. ba mu fa jógee mu ni ah. dafa am école yoo xam ne ci Thiès dañ dañoo bëgg def génie en herbe te amu fi école Kër Maam El Hadji ñu yóbbu fa quarante ordinateurs mu jox ko xale ya ñi nekk fa di ci liggéey di ci jàng bi mu jógee foofu dafa ñëw prison ba mois de mars bi mu njëkk def 8 mars prison ba la ko defee yóbbu dafa freedom pour jigéen ñi yóbbu ko omo yóbbu ko javel yóbbu ko saabu ndax jigéen ñi suñu nawle jigéen ñi nekk ci biir mhm. ñun ñu nekk ci biti mhm. président Abdoulaye Dièye foofu la leen fekk mhm. defal leen teraanga ba mu fa jógee mu dugg ci marché yi ajaa ki ne yoo xam ne ci dara fekk na la sa marché gis na jigéen ñi amul douche marché occas lu mu njëkk def daan ah góor kat mën naa jàdd marché mhm. xel comme góor mën naa jàdd ci sàkket yi mhm. jigéen mënu ko mhm. xaaral ma defar fii ay douche kon émission dama bañ a jël lépp ci taxawaay social boobu ñu dugg rek ah abi di wax na sama mbokk jigéen ñi képp ku dégg wala nga gis financement démb bi toogo rek xar sa wàll say nit mhm. monteel say comité mhm. président Abdoulaye ngi ñëw dina ñëw te ku mu ñëw rek mhm. boo moytuwul dina la fiir incha allah macha allah waaw joxal abi euh, abi Thiam yow nga bokk ci ñi nga xam ne démb euh, président Abdoulaye Dièye ñëw na ci seen mobilisation fekk si leen fa vraiment bett leen nag lu neex nag euh, loo xam ne bi ñu xëyee tey moom la ñëpp di waxtaanee ba tax na ni ma koy waxaatee rek ñi nga xam ne jotaguñu nañu xaar seen wàll ngi ñëw dañ laa bett démb niñ la bettee démb nag neex na lool ñu bëgg nga wax ñu niñ la bettee bu ko defee ñeneen ñi xaar ndax ñu bañ leen a bett ñoom it. <laughs> macha allah macha allah maa ngi nuyu sama yaay ko ñaanal yàlla ay ciram. maa mm-hmm. ngi ko mm-hmm. li nga wax dëgg la. Mm-hmm. suñu DG boobu. Mhm. nga xam dafa jaar jaarukaay bi. Mhm. daa ko ci toogukaay bi. Mhm. macha allah dañ koy ñaanal yàlla. gudd fan ak ànd ak wér nag. yàlla bàyyi ko nag ak président bàyyi ko ak njabootam. koy ñaanal yàlla wér daal. di ñaanal yàlla Ahmed Lamine Djité mi nga xamante ni. mooy suñu buntu ci DG Abdoulaye Dièye. mais Lamine Djité réccu wuñu lañ lañu doon boolee ak DG. réccu wuñ xanaa yéex gi. yéex gi la ñuy jooy. macha allah lépp neex na. démb dañu def suñu 8 mars cité Senghor. wax dëgg yàlla DG ñëw fa. bett ñu ak bett bu neex boo xamante ni. maa ngi ñaanal yàlla yeneen responsable yëpp. bett boobu ñëw ci ñoom te incha allah day doog a door. ko dooree ci ñun. responsable bu kenn yàkkamti. DG day ñëw. neexee yàlla dina wër njabootam gépp dina leen bett ak bettum jàmm ak salaam bett mi neex na lool ndax biir yu baree baree bari la. ñaari million ñuy ñaan yàlla nag ba mu gën suqaliku mm-hmm. dëgg yàlla kontaan nañu ki ne macha allah abi ñaan amee jiite bu baax a baax a baax moom mu ñu booleeg moom macha allah abi ñu nit kontaan nañ macha allah ci ñëw bi nga ñëw ndax dëgg yàlla nit mën na laa defal lu baax sax te doo ko fësal mm-hmm. waaye vraiment yéen bi ngeen xëyee tey ñëpp moom la ñuy waxtaanee teraanga bi président Ablaye Dieye def comme ni ma ko waxee bi mu commencé ndax commencé laay wax daf ko commencé daan na ko def mais nii nii nii dafa jël initiative bu képp koo xam ne nitam nga di responsable nekk ci gox dina sol dàllam fekk la fa ñëw bette la ak lim la bette yow tey bette ko sa yeneen moroom ñeneen ñi di xaar te incha allah nee naa la ñëpp la ñuy bett man nag bett bi naa ci topp Adja Marème bala ngaa ñëw man naa ci topp ba pare voilà ah, Doudou Wagué suñu ndaanaan bi macha allah moom it ñu waat ko rek mu yëngal saal bi ndax da cee bokk vraiment dacee bokk sunu lingeer bi sunu lingeer bi kontaan nañ ci yow bégg nañ la bu baax a baax a baax dañuy bëgg nag boo toogee ba yàgg sax nga jug taxaw ndax loolu daf ñuy neex ndax dañoo gis démb cosaanu démb dafa delsi nee naa la libidoor bu ñëwee jamutuñ ñëw ah ay nguuka ñëw macha allah sëru rabal yi tegaloo kon cosaanu démb ñëw na kon kontaan nañ macha allah bu mhm. ñu fàtte aussi ñi nga xamante ne rek tey ñoo jàpp ci combat bi voilà ndax mhm. waxee rek suñu xel day waa kër moo mhm. koy remercier bu baax waaye suñu xel aussi day dem ci Ousseynou ak Assane Seex yi waaye suñu xel tam day dem ci nga xamante ne tey orange yi ñu génn euh, tey moo ñu si génne waaye ñi nga xamante ne mooy waaye tey ba tey ba tamit euh, Anta nekk fa soxna Anta tey moo ñu génn ci bleu blanc yi macha allah tey accompagné ñu suñu marché bi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen kontaane dañ leen machallah soxna asukan ñoñu defal collier yu rafet yi lola takal ñuko chaque année nak ni lañuy def ak ñun kan, vraiment voilà euh, sunu sunu euh, commerçante bi momit defal ñu val yu rafet yi ñu sol ko voilà ñu ngi leen bu baaxa baax ndax vraiment mënoon na leen ci baña fek mais at bu jot sa su nek ñu ngi and ak ñun ci lu taaroo nii wagé suñu ndanan way la ci yaa ba composé am mbokk ma tuddee la gaal Ablaye Dieye la nuy bégee sigi na am mbokk ma duppee la gaal Ablaye Dieye la nuy bégee sigi jot ah, tey ma way la ci ceskaay yaa ba composé am bokk ma tuddee la gaal jigéen ñi xewale si gi jot na am bokk ma tuddee la gaal borom teraanga ah, Ablaay Maadu laay béggee ya jàppale jigéen ñi jàppale góor ñi bàyyi néew di doole yi bàyyi jirim yaa ngi nii Ablaye Dieye maa la mag ngay nangu waaye doo nangu maa gën DG bi laay woo ajaratu may mu naay sa yaay siggi jot na ki ne saye ci yow ci bésu jigéen ñi Ablaye Dieye jar naa woo du yàgg joom ba ñaaw borom taranga way ci cosaan yaa ba composé am boog ma delloo la gaal benn dëkk ñaari gaar kes kaay woote Ajaratu Mariam ma yónni ci yow présidente des ki yàqul si gi na jiga di woonu man ki may way janna way aka neexa way jey ma samba girim ak a tumaan garmi baange way la yaa la gaal ah, leen ci doom bi sànni ko ci làmmiñu nit ñu ñuul ñi lu nu wax wax du teenu gërëm Ablaye Jeey yaa gore jigéen ñi nee nañu jaaraama mag ñi nee nañu jaaraama jeunesse bi nee nañu jaaraama Ablaye Dieye bilaay yaa ne xaway liggéey ndey añub doom ajaratu may mun a la ñuy woyee sa yaay du yàgg ba ngay ñoom ajaajatan jeey baayam garmi baange way la ci cosaan yaa ba yi nañ leen teral jigéen yàlla sargal jigéen yàlla ko njëkk a sargal boo benn mu joxal yaay ñaar mu joxal yaay ñett mu joxal yaay ñeent mu joxal baay nañuy sargal jigéen ku ko sargal da yokku ku ne am nga si gelewaay jigéen ay sunu yaay nañuy sargal jigéen. ma composé am boog ma delloo la gaal te dëkk ñaari gaar kes kay woote naa ah, benn dëkk ñaari gaar kes kay woote naa na dëkk ay waay kinne mu sëñ Fallu ku ko way ku baax kinne say baw ndaa naan nga sama waaji sama waaji yal na fekk mu mat waayi sama jigéen bi mat na waayi artiste la ñaari yoon boo ko gisee xam ni moo ñàkk ki ñaana li ni ñaanda banaa dellu di ko ñaan rabbana suñu yàlla bëggee nañu bàyyeeg yow kenn du kinne dàgg joom ñaaw gar mi baange e jigéenu Sénégal am ngeen jaloore ñaari e jigéenay aawo jigéenay ñaareel jigéenay ñetteel jigéenay ñeenteel ku baax jigéen na la jur ñoo kilifa diine kilifa aada yi te nan ngeen jigéen ku ne sargal jigéen eh nañuy sargal jigéen nañuy sargal jigéen. dana dekk ñaari gaar kees kay na. eh sargal jigéen am na solo lool. dana dekk ñaari gaar kees kay woote na. walaaye ajaratu Marème Diop nañu sargal jigéen ñee. dana dekk ñaari gaar kees kay woote naan yàlla na ma ma yàlla bëggee dama bàyyi ak yow waaye ma it ma yàlla bëggee ma bàyyi ak yéen macha allah ndax démb la di du tey euh, bu ma gisee Maguette Sarr toog ma jàkkaarlook moom jàkkaarloog du wage mii sama xel day dem ci démb ndax nag ñoo fawandoo ñoo daan euh, bokk troupe théâtrale euh, bëggoon na cosaan lool nag ba nga xam ne suñu lépp cosaan lañ ko daan def macha allah te ba tey dara ñaawul kon yéen amuñu seen fay walaati ci sama rakk ji. xana ma bàyyi la nga jakarlo ak ay dafal jarabi ndax xamna ne amna amna lo na loo bëgg a feggoog moom ndeysaan di contane bu baax baax ci chanteur Doudou euh way bi neex na ci wayam sax euh gannaaw ba muy wax baax baaxu le président Ablaye Dieye. Mhm. ndax nag ku aaye war sa moom gannaaw tey jii. Mhm. waa si gi jot na ñoo fi bari. ñoo fi bari waaw koy nangu tey <laughs> dañ leen koy nangu am Fadja. waaw yaa biir. <laughs> Euh, donc rek euh, dinaa judd gu wagal si biir wayam sax mi ngi naan nañ leen sàggal jigéen nañ leen fonk jigéen. Mhm. donc vraiment rek mu nekk lu lu neex si xol bu ñu jógee góor di ko wax sax. vraiment ça nous droit ça nous fait droit au cœur. dañ ciy kontaan bu baax a baax dugg wagal ñu ngi lay jaajëfal bu baax damay gëstu nag jàkkaarloog Aïssatou Fall jara bi comme sama sœur adorée waaw waaw moom yàgg nañu gis naa ah. si ay émission yu am solo solo uh-huh. mu nekk jigéen bu jàmbaar jigéen boo xamante ne miliam euh, ba ma cay def di si wax euh, vraiment dafa nekk euh, ku am solo si góor ñi ndax am naa fi benn festival boo xam ne dama ko créé ba ma ko waree def muy benn mode collectif ma waroon def vraiment ma prépare ko pour une semaine ñu boole maag jarab yi jëmb ji ki ne di ko teewal di ko seedeel mbooloo ma dem fa moom mënu woon bokk mais ñam ma boole presque ay góor lañu ba ma demee dans une semaine pour préparer mode collectif yombut mais góor bu ma dem nag da ngay naan Aïssata Diarra bi moo ñu boore bind ma donc mu mel ni mu mel ni dafa am gëdd boo xamante ne dañ ko fa jox te moo nekk personnalité boo xamante ne moom moo koy liggéey ci biir góor ñoo ñu mu nekkal ndax ku ne couture ne góor ñi ñoo si gën a fës jigéen ñi sinka la ñuy toog ñaw di ñu fesal seen bopp waaye moom dafa ñëw si langum couture bi génn si boppam fëlal boppam war ni jigéen fa góor ñi taxaw di mën a ñaw ay jigéen ñu mën a ñaw te dàq góor ñi sax ñaw sama question bi ma koy posé mooy jigéen gannaaw ba nga ne sax ñaw bi foog ñu épaulé la nga door a mën a wan sa bopp mais aussi nan la ñu war a fekkee jigéen si milieu ñaw bi comme yéen seen milieu bi nga xamante da ngeen koy buuxante milieu buuxante la wa doon ban taxawaay ngeen war a am pour war a wane seen jàmbaarte si ñaw bi ba mën mën leen euh, li ngeen comme yow ni ñu la joxee ni nga yelloon lan lan lan nga béy lan nga xeex ba tey jii fi nga egg nga egg fi sant yàlla bu baax di gërëmaat samay ñaari waajur di la wax ne la amul secret ah seul le travail paye liggéey mooy jaay boppam te xam ngeen ko sañse aussi boo ñëwee lu rafet da ki nekk ba kilikoro day di ñëw donc liggéey dafa jaadu nga ciy def loo xam te ne dafay rafet am finition ba pare ku ko sol sol sol

mu joxe léegi jox ko Abdoulaye Ngom mm-hmm. Abdoulaye Ngom pare ñëw jox ko ku ñuy wax di Seck mm-hmm. muy xale moom it xale bu baax mm-hmm. xale bu dégg ndigal xale bu nangoo sëgg nit ñi jëflante ndax dañ naan njiit da nangu boo nangoo mën a defar te defe naa ne loolu moo bët regroupement bi ma ànd ceeg ñoom depuis 2009 di ci ànd ak ñoom comme ni nga ko waxee doonu jigéen seen biir ànd ak ñoom di liggéey vraiment aussi ñu nangul ma ñu nangul ma su ma ne nañ defee ni ñu def bu ma ne nañ jàpp ni ñu jàpp bu ma ne nañu bàyyi ñu bàyyi mm-hmm. loolu dem ba jur section féminine mm-hmm. mooy maanaam comme li nga ko wax jigéen fu mu nekk dafa war a am taxawin mm-hmm. ñu dem ñu ne ñu def suñu mbooloo tuddee ko section féminine mais dañoo bokk ci regroupement des tailleurs barki démb démb rek la ñu def suñu 8 mars 8 mars boobu vraiment yaakaar naa ne ñëpp a ngi koy waxtaanee ndax dañoo ñëw jël suñu couleur nation ndax li tax ñu jël ko dañu ne fii euh, ñoo yore liggéey bi nga xam ne moo ëpp sutura ndax tey ku ci simmeeku woon taxaw fee rek nga woowee ko leneen mm-hmm. kon lu mu ci mënti doon rek ñun ñoo leen di suturaal ba tax ñu def vert jaune rouge mm-hmm. vert jaune rouge dañuy wane li ñu taxawee ci nation bi mm-hmm. li ñu taxawee ci réew mi kon amu euh, ji jigéen baax na góor baax na looloo tax ñu dellu ñu ñu amaat taxawaay taxawaay googu soo déggee sànq ma ne la ñu jàppale ñu euh, jamono dafa dox te dafa soppeeku lépp a cher ndax suñu jamonoy maam machine loxo lañ doon ñawee ñu dem ba ñëw indi pédale pédale dem ba réer ñu ne machine courant mu am ci ñoo xamante ne seen doole mayu leen ñu jënd machine courant yi ci machine courant yooyu dem na ba ngay mën a jënd gros fil petit fil machine ordinateur bi ñëw nga ñëw jënd 217 yooyu ma lay wax xaalis bu weex tàll moo koy jënd nga dellu war a aménager sa sa sa sa atelier pour mën koo defar ndax foo nekk da ko war a mën a defar ni ñu fekk si la xamante ne budget ci nit ki ndax te xam nga jigéen jigéen ci biir këram dañ naan moo yore doom ya yore njël ga kon boo ko bëggee dolli bëgg defar sa atelier day daal di metti nga bëgg a dolli nga ne da nga bëgg a génn xamaat leneen li xew ci yeneen i réew ndax foofu la jamono toll jamono dafa toll nga defar fii jaay ci toll na suñu biir atelier sax xaar client tollootuñ fa da ngay ñaw teg te nga ñaw teg rek foog nga budget foog nga am benn fond fond boobu foofu laay waxee ba tax ne foog tamit nit ñi di ci jàpp

kenn ku nekk bàyyi nga njaboot te yaa ngi fexe ba defar sa atelier yaa ngi fexe ba yaa ngi am ci machine yi xew yaa ngi fexe yaa ngi am ci machine ordinateur yi yaa ngi fexe ba aménager yaa ngi fexe bokk ci foire yi pour jaay ndax jamono foofu la tool ndax boo toogee xaar clients yi rek dootuñu ko de clients yi léegi xam nga lu ñuy def dañ lay woo ne la waa jara bi lu nekk foofu man de damaa war a dem suba benn mariage suba damaa war a dem benn ngéen boo fekkee yaroo dara mooy doo liggéey parce que moom tamit moo amul temps pour dem marché jënd tissu ñëw indi di xaar semaine prochaine pour ñu jox ko ñawam kon dañoo toll foo ñu fekk rek war na ñoo mën a am loo xamante ne prêt à porter kooku soxla moo xam mariage la moo xam baptême la moo xam tour la parce que tamit yu oyof yaa ngi ci même mm, gis nga koor gi ñëw chaque jour ñu ne waa jare bi baa yaa ngi pare koor gi kon loolu dafa doon loo xamante ne foog nit ñi di ci jàpp jàpp googu ndax euh, man bëgguma ku may may xaalis parce que boo ma mayee xaalis dama koy yàq léegi wante gis nga xaalis bii ma jaay laay balaa ko kenn génn da ngay def lu bari parce que damaa sonn balaa ma koo liggéey moo tax nit ki doon lel ko ca la mu nekk da ciy am solo ndax day gën a góor góorgóorlu foofu laay waxee loolu moo tax ma gërëm euh, Abdoulaye Dieye parce que euh, li may wax dama ci seede ndax man ab Abdoulaye Dieye balaa may wax sigi jot na da cee jàpp te ku la jàpp nga fekk si ndax ñun suñu festival yi ñu daan def avant pandémie bu yàgg ci lay ñëw di ñu fekk si te loolu nag képp koo xam ne bu ma tuddee tudd ab Diès da ngay gis naan lu mu wax lu mu bëgg lañ may wax. Mm-hmm. loolu dafa sedd xol. dafa sedd xol loolu pour mën koo jàppale sax du du du jafe. te ñun suñu liggéey ak fi ñuy wax. amuñu droit sax di xeex état parce que état li nga xamante ne jàppale suñu chambre de métier ma di ko nuyu suñu président chambre de métier Amadou Makhtar Seye di nuyu suñu ministre euh, Pape Amadou Ndiaye defe naa artisanat monsieur euh, son président le président Macky Sall def na ci lu bari wàllu ñaw yi ñuy wax barki démboo njaay ngeen gis tenue scolaire yi def naa ruq-ruqaan yi nga xamante ne euh, ñaw sax dañoo yaakaaroon duñ ci laal benn million sax laal nañ ko kon loolu dafa doon loo xam ne da leen di dox courage da leen di jox jàmbar da leen di jox renforcement pour ñu xam ne lii ñuy liggéey mën nañ ci avancé kon lool foofu laay waxee ba mu tax ne ñun jigéen ñi ñu taxaw taxaw koo xam ne sant nañu yàlla bu baax a baax daal di ñaan yàlla mu yokk waaw waaw kii de daal nee na benn section féminine mhm. nga may ma tuuti rek euh, section féminine dafa mhm. mooy euh, xam nga am na couturier yoo xamante ne am ñu doole mhm. te yéen yàlla dimbali leen ne leen xam leen fëf yéen est tamit jarul ngeen xëcc ñooñu wala tamit sax yéen koy def xëcc leen boole leen rek féminine bi ba ñoom tamit ñu mën a gis seen bopp boole seen jàmbaar ak seen mën ñaw ndax am na ñoo xam ne amuñu waaw te a ñaw. pour jàppale ci lool nga wax euh, région de Thiès laa la wax. Mm-hmm. bàyyi ñu ci département ñëpp dañoo bokk ci section féminine. Mm-hmm. Tivaouane Mbour Thiadiaye Xombol Mbor ñoom ñëpp dañ cee bokk. Mm-hmm. ruq-ruqaan yooyu ngay wax. bokk na ci li nga xam naa ne du xaj ci euh, émission bi bokk na ci may créer ay événement yoo xamante ne fii ñoom ñu ci ruq raqaan laa ko daan def ñuy génn pour ñuy mën a ñeme parce que dañ ci gis ñoo xam ne ay jàmbaar lañ mais seen ruq rek lañ toog te ñemewuñu te bañ leen génnee ba léegi dañ cee am ndam Euh, vraiment ma leen di sant ndax saa su na ñu may bëggee mhm. te loolu rek la ñu am nit ki boo xamee dara wala nga gis lu baax wan ko sa morom donc foofu la ñu liggéey ak macha allah au passage au passage euh, ma ci félicité euh, di sargal mhm. euh, sama couturière sama jabar sama xarit muy Ami Ndaw madame Sey mhm. macha allah Khoudia Sey man sama famille presque ay couturière lañu <laughs> Nabou Sey macha allah Khoudia ci biir mhm. ak mam Maram Mbaye sama xarit xol boobu vraiment di leen sargal ndax moom it ay jàmbaari jigéen lañu mais ba tey tey ci bis bi ola dañ fay am gan muy Khady Bousso macha allah jóge Baxdaat bu jigéenu monsieur Thiam sama xarit boobu moom it ñëw tey indi ay seede ci président Ablaye Dièye ndax dafa bokk ci nga xam ne démb ñoom it dañ leen a bett nee naa la betteel gi man naa ci topp mhm. voilà keneen di ci topp naa ci topp mhm. waaye moom it dañu koo bett démb macha allah euh, ak mbégte mu neex mhm. ci jotaayam nga xam ne moom it surprise la xaaru woon sa président Ablaye Dieye vraiment waaw ah, ñu bàyyi ko mu nuyoo moom it wax yëg-yëgam ci bis bi boobu voilà xat yi ci di gërëm monsieur Thiam ndax wax dëgg yàlla ku ñemee rek dañ laa dey ñun jigéenu Baxdaad bu ñu ñemee di génn ci milieu politique bi ba ciy fël di ci am yenn kii moom la moo ñu de moo ñu tette kon dañ koy gërëm au passage di gërëm Adja Mariam Diop mii nga xam te ni moom moo nekk ci boppu sigi jot na ci femme yi di gërëm Fatou Kiné Camara Fatou Kiné Seye madame Camara di gërëm ñi ma fekk ci plateau bi ñëpp Aïcha Fall jara bi ndax comme ni ko kii waxee rek plateau bi moom daanaka plateau sigi la mm-hmm. kon sama famille laa fi fekk mm-hmm. macha allah damay gërëm ñëpp di rafetlu teewaay bi mm-hmm. waaw di wax ki ne rek waaw ci li mu wax mbetteel gi ñu am démb parce que ñun sax peut-être organisé wuñ wi organisé wuñu woon 8 mars pour Ablaye Dieye ñëw nangam nangam dañ doon def 8 mars bu ndaw rek toog dëggalante kafre man sax yàlla xam na dama wooroon yéex naa génn dama toog ba ay 19 suy dem dina fi jaar mm-hmm. simplement nii rek la demee mm-hmm. pour wane ni moom dafa simple mm-hmm. te lii mu def defewu ko pour achat de conscience parce que bu doon achat de conscience ci kii municipal yi ñu génn peut-être daan nañ yëngu bu ko defoon foofu dinañ man ni lii kat daf ko def ndax am lu mu ci séentu mhm. mais geste bu naturel la loolu man moo tax affaire bi gën ma frappé mhm. wallaahil azim mhm. préparé wuñu ko xaaruñu ko defuñu ko dara moom rek moo nekk nit ku baax nit ku simple di yëg nag waa Baxdaad parce que waa Baxdaad chaque jour bu fay ñëw spontanément dañuy génn ñoom ñëpp témoigné ko seen affection wan ko ni ko bëgg nañ la wan ko ni ko ci yow lañ bokk lool rek la magnifié démb mu geste boo xamante nii ça nous va droit au cœur amuñu ay mots yoo xamante ni mën nañ ko qualifier

ah mbettali nag macha allah neex na trop ah, di wax jigéen ñi ba tey it Adja Marème nii mbettali mbettali ñëpp la bett. incha allah képp koo xam ne ñëwagul ci yow it jàppal ni mu ngi ñëw ndax dañoo door démb rek incha allah te ñëpp dinañ ñëw ci loolu laay jaare di nuyu As Diop ak nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi fii si Senghor ci béy gi ñoom it allah démb organisé organisation bu rëy ah ma dem ca wax wax dëgg yàlla ñu dalal ma yëkkati ma ba mel ni président Ablaye Dieye moo ñëw ñoom ñu leen xamal ne mu ngi yoon bi incha allah ku ne di nga ci gis sa bopp Adja Marème xanaa jox la kàddu gi it nga sànni ci ñaari baat ñu doog a ñëw nag ci beneen deuxième partie bi. Ah, di kontaan rek ci hmm. jigéen ñi sama doom Ola maa ngi kontaan ci yow. <laughs> yaa Seyda dawal sama yaram ci xale boobu ànd ak waajuram ba mu def ko noonu. Hmm, hmm, ah jigéen moo sonn. jigéen dafa nekk ci foyer bi. ndax dañ ne wéeru jigéen ñi la ñu nekk. jigéen bu dee sëy moom la. bu dee jur doom moom la. su dee jàmm moom la. su mhm. dee bënn moom la. Mhm. jigéen lépp lu métti rek moom la. macha allah pour passé moom la. Mhm. suñu yaay yi sonn. may nuyu sama yaay ajal daf koy sekk. na sama waajur sëy bu rafet. sama yaay couturière la woon Aïda. boobu sama bëgg la sama yaay couturière la woon. kon ba yëpp moo fa nekkoon couturière ñu koy ràng xëy na ñun ñoo jël métier boobu. waaye lépp lu mu mës a liggéey. yóbbu ko Dakar hôpital Dakar yi xam ne. da koy jëli si biir su yo jaayee yóbbu Touba bu ñëwee ba fara feñe da koy delloo si ci biir këram uh-huh. ah bu njëkk ba ñun suñu yaay ñooñu gën neex la de suñu yaay benn néeg lañ daan am fukki doom uh-huh. ñoom ñëpp ñu nekk ci biir benn néeg dara du yëngu uh-huh. ñun nag tey ah macha allah machine yaa ngi fi ah ki ne see gis naa modèle am ay daa ngi fi di ñaw di mayee li mu naan liggéey boo liggéey da ngay préparé sa bopp di ma jaar jarab bi kuddu keroog dama fa jaar rek oto ñu corne pour ñu génn ñu wax ak moom dugg leen sama yaay ñun ñi ñëpp ku ne dama wékk mu jox la defaru ba baax defal ak lii ba mu kon ca kanam yàlla la yàlla jàppale waa sama président Abdoulaye Dièye kuy wax si moom doo doy dama dégg Doudou Wagué way léegi nii ma Adja Marème jiga doo président Abdoulaye Dièye loolu dëgg la waaw moom tam jiga diw ma président Abdoulaye Dièye ba may daw dëgg wuj ji boobu amul benn góor ci mouvement bi mouvement bi ñeenti góor ak man ñu juróomi nit ñu ànd ba tey waaye nag président Abdoulaye Gueye moo ma jàppale. Mm-hmm. moo ma jëlee ci A yóbbu ma bee. moo ma jëlee ci un ba yóbbu ma dix. Mm-hmm. te du man kese nag. Mm-hmm. ndax suñu moroom jigéen ñi ci biir kër yi. macha allah xale yu baax laa nekkal ci biir. parce que kër. boo fa duggee. da nga fay fekk fauteuil. fekk fa banc. fekk fa soo ñëwee bu laajte toogal boo taal laaj nañ ko fa defee te xale yëpp jàpp nañ ñëw na kon Doudou Wagué li nga wax ci Thiès Thiès kaay wate nga président Abdoulaye Dieye. kooku mooy l'homme dafa régional ba nga xam ne waaye bu ñu ko fayee am naa lu muy naka jekk sa yooyu daf may daaneel. Mhm. rawat na ba nga tuddee président Ablaye Dieye ba tudd Thiès. Mhm. ñun ay doomu Thiès lañu. Mhm. kon président Macky Sall bu toon ne taal ne Ablaye Dieye teg ko Thiès. ah tam bàyyi fa njabootu politique am mu nekk am caata mu indi ko fi. waaye Thiès tàll nañ leen ndox. jàppaleen Ablaye Dieye mu jàppale président Macky Sall ba ko jigéen. macha allah Adja Marème kàddu yi rafet na la. Euh, Fadja dañu ñëw ci sunu deuxième Euh, ñuy waxtaanee njàmbaate jigéen ci géopolitique sunu yaay Mariam sax maanaam tàmbali na ko euh, ñu ñu bëgg xam euh, ndax dañ naan en général jigéen warul warul ci ci diine warul di di di fréquenter góor de trop. te gis nañ ci géopolitique bi jigéen ak góor dañuy dañuy affronté wu. parce que nag jamono ji moo ko laaj. vraiment jamono ji moo ko laaj pour nga wane sa njàmbaar foog ngay jàmmaarloo góor ñi pour pour pour mën a am li nga bëgg. waaw bëggoon nag nga kii ñu rek baaxee ñu dara foofu. macha allah soxna ki ne am na solo. Mm. Euh, sama yaa Mariam dafa am benn question bu ma ko bëggoon laaj. Mm. mais wax na ko dama ko bëggoon laaj kañ la ànd ak Ablaye Dieye. dina ci ñëw ñëw na ci ñëw na ci ah. parce bi muy ànd ak moom. yàgg na ñeenti.